tes spectateur yi spectateur yi tirisi hmm. auditeur auditeur fu meuna nek ci aduna bi rek hmm. di safo télé bu mag bi di Nasrou TV media ak li ngeen ci jang ci seen walu diini ak islaam ahsam yi ak ngeen koy doxale hmm. dañu ñaan suñu borom dus ci jëfandikoo lu ne yalla leen fekk fi ngeen ko bëgg te yóbbu leen fa ngeen bëgg ci barkeelante bi Seex Xaadim kon jataay bi xaw nañu tënk. Mm-hmm. moo tax ca nuyoo bi du yàgg. Mm-hmm. nu siyaar ñëpp rek ñu ñëwaat ñu ci saal mm-hmm. te des jataay bisimilah. akasa sëriñ bi kon ni ñu ko waxee sànq rek. ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen. émission bi sëñ bi tey waxtaan wi suuratul falax lay doon. wa suuratul naas. lan mooy seen maanaa. yan njëriñ it lan ci mën a jukkee. mu mel ni. ñi ko maanaam miin bari na lool ndax bokk na ci saar yi nga xam ni ñoom ñoo tëj kaamil bi ci ci ci suufu suuf nga xam ne ñoo ci mujj te boo tàmbalee faatiha baqara laan ba falaxe ak naasi foo ko tudd rek xel yëpp dem ci ni kaamil bi jeex na nga xam ne ñu baree bari ñu ngi koy jëfandikoo ci wàllu muslaay yu mel noonu waaye mun làmboo ay njëriñ yoo xam ne ëpp na loolu ci fal nit ci wërsëg ci aar nit ak ci lépp ñu bëggoon sëriñ bi tey nga indi ci ay leeral yoo xam ne dinañ ci mën a jëriñu insha allah rabbi barakallah seexul xadim saar la yoo xam ni maxnaa yi dégg ko suru woon ak jëfandikoo gi ci wàllu wértu mbaa jëfandikoo ci wàllu sangat dégg ko rek waxin wi mën na dimbali àdduna dimbali àlaxira bi jëkk ci li may wax mooy ñoom ñu ngi positionné wu ci téeméeri saar ak fukk ak ñett. waaw muy falax. Mm-hmm. naas yi mu ngi positionné wu ci téeméeri saar ak fukk ak ñeent. kii mm-hmm. 113 la. kii 114 kii 114. noonu lañ tëdd ñoom ñaar. Mm-hmm. soo boolee ñoom ñaar ñooñu. da ngay am 227. 227. 113. ak 114 ñaari téeméer lañu. Mm-hmm. ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. Mm-hmm. moom la ñu mm-hmm. eh, bu yàlla borom bi tabaraka taala di wax ci alxuraan di yéeme ci moom nga jàngat ko. ci moom ay jaamam. def leen ni mu bëgg. wax li bëgg ci ñoom. bi muy ubbi kaamilu alxuraan. boppam la jiitu. ñu ngeen ma sant. waaw alhamdu alhamdulilahi rabbil alamin lillaahi rek. xaaj cant yëpp ñeel na yàlla. ba muy tëj alxuraan ci suuf. moo ne ñu ko war a sant. war a sant. minal jinnati. ñu war a sant yàlla. minal jinna. wannaasi wannaasi mu nit jinne xam nga lii rek doy na. sëkk. ki moom i jaam. def ci ñoom li war a def yëpp. dama soxla ku ma sant. daal di ñuru alxuraan hmm. xuus nga di ko topp hmm. muy def benn jéego ñaar ñett hmm. ba téeméer ak foog ñett alxuraan jeex mu def ñuux ca suuf ni ñii laa bëgg ñu sant ma li ma wax ci wax ci yëpp muy nit ak jinne alhamdulilah moo bi kaamil bi ñan ñoo ko war a def minal jinnati wanaas nit ak jinne tey na am na leneen lu ci feeñ lu ma yéem alhamdulillah cant yàlla suñ bopp ban yàlla rabbil alamin rabbil alamin moomoom mbindeef yi waaw borom mbindeef yooyu mbindeefam yooyu boo dee ci falax yi daf lañuy wax matière bi nga xam ne dafay day am ci ñoom nga dem ci naas ci seen suufu aaye moo xam matière bi am ci ñoom rabbil alamin borom mbindeef yi bëggul ci benn jaamam haasidin isaa xasad muy ko ku iñaan wala loolu bëggu ci benn jaam xasad xasad fan la nekk bu nekk ci benn saar bi ci des mu ne fii si dóori naas naas ci dënnu ca suuf ca suufu naas fii si dóori naas ji dënnu nit lu mhm. fay nekk xasad bële ca falaxe xasat bii nekk ci fii su dóori naas yàlla nee na bëgguma ko xasat bi mu jox ko falaxi fii su dóor bi mu jox ko mu jox ko naas xoolal xoolal jooju wax jure yi diggante kon alhamdulillahi rabbil alamin ak wa min sari haasidi isa xasat ak fii su dóori naas yi bu mu nekk mukk minal jinnati bu mu nekk mukk wa bu mu nekk ci dënn jinne pour muy bu mu ci dënn nit déggal jooju boobu xikma bu ngant bismillah saar yi nga dugg tey boo ko doon doon jàngate di ko firi yàlla nee na yow jaam bi lépp xam ne luy doomu aadama la war koo tàggalee sagoom ci kaw suuf wala doomu aadama war koo bëgg tam di ko jariñ ci kaw suuf suñu borom def na médicament bi koy saafara ci bir sar yi mu wax sar yi mu la wax xam nga falaxi boko limé juromi ay la lay jox nasi boko naasi boo ko limee juróom benn ay la lay jox so bolé 5 ak 6 da ngay am 11 ben fuk ak ben nga yek ci kon ni fukki continent ak ben wala fukki façon gi feebar ak ben wala fukki soxla ak benn yi nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk ci boppam hmm. bu mu ci mën a doon boo dee ci biir alxuraan fekk ko ci ci biir falax ak naas waaw hmm. wala loolu hmm. lu yàlla jëkk wax sëñ Xaadim yow bëgg sécurité ba tax di ko wut yaa la balance wala arme noire la muy jëm ci ngànnaay yi nga xam ne day dagge mm-hmm. jaase gi ci aju wala arme boo xam ne day tàkk mi fital mm-hmm. wala agresseur buy loraate mm-hmm. wala dina la limal ci biir xeet ñi nga xam ni ku fexe ba ñoom saar yii li yàlla dëxañ ci seen biir ci xeetu pharmacie nga am ko doo dajeek ñooñu mu jàng benn saar xul ah wasukran falax bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq من شر ما قلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا عسد بربي تبارك وتعالى نينا taala <laughs> nee ci yàlla suñ borom mi nga xamni mo bind falax falax day contrôle diganté six heures de temps bu jant bi jóg di xonq nga diko seen nële ba buy sowat di xonq noonu moy dafa mel ay xàmbaar loolu moy falax ku nek ci diganté ñaari xonq xonq yi dansé bu mu yor bu ne yàlla nee na. Mhm. kaay ci biir saar bi nga jàngal ma a'uuzu bi rabbil falax. Mhm. Mhm. ma dox sa diggante ñoom. moo xam. bu fekkee jant bi jóg na tuuti. passé 9 heures. jëm 10 heures 11 heures. ba ba muy demaat. 4 heures 5 heures jëm noonu. lépp lu yàlla bind ci kaw suuf. wala bu jant bi soo ba ba jant ba ba muy fenkaat lu yàlla bind ci kaw suuf nga xam ne mbindaafoon nga min sari maa xalax min sari maa xalax suñ borom ne ne boo bëggee mucc ci pexeem hmm. ñëwal ci saar bi di falax nga jàng ko hmm. awon ah, maa ngi mosul bépp falax hmm. yàlla mi nga xam ne moo bind falax ak li ci biiram waaye awon ah, su maa ngi muslu min sari maa xalax ci ayu koo xam ne dañ laa bind léegi ay kuñ bind mbaa jàppoon nit rek la nit rek mën a loore hmm. yàlla weesu na ko hmm. gaynde mii doog dogale nit ñi ci àll bi hmm. du mu ndéef ah, waa jaan mii mataate nag jiit mii fittee wala sawara mii lakke wala paaka mii dagge wala garab yi daanu ci kaw nit ñi wala remboulement de terre yi loo gis ci kaw suuf mbindeef la mbindeef mooma ka ko mën a lugg ba nga mucc ci moom suñ borom nee na booy waxal ak moom. Mm-hmm. xam nga dafa am benn borom xam-xam. Mm-hmm. dafa romb ab xaj xaj songu ko. Mm-hmm. mu bëgg mujj ci xaj bi dafa ay xeer di sànnanteeg am ko ko wax ne yow muusoo woo borom xaj bi mu teel la xaj bi moo gën a moo gën gaaw ngay jéem a dàqante xaj bi parce que xaj boobu li fekk mi ngay teg ba doogu ci si moom. kon boroom xaj bi mooy suñu borom. waaw min sari maa xalaax. yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci ay loo xam ne yaa ko bind bu mm-hmm. ma mën a la mm-hmm. wa min sari xaasixin isaa waxab mm-hmm. am na ñoo xam ne bala ñu laa mënal dara dañuy gas pax ba mu xóot nu fab nangam gas suul ca ma waral gaa yi nga gis ñu dem ci bàmmeel yi tippi bàmmeel ni nga yet ba mu yow nga fab ba xar duwal ci biir mbaabu bëy mbaam picc mbaam téere kooku day gas di suul am na keneen koo xam ne day wax ba mu neex ko mu yëkkati jënu lal mbaab mu wul ne dafa kàpp wax sëf waaw am na keneen koo xam ne ab foos toilette bu kenn soxlaatu nga xam ne day xeeñ ndax yow bëggatuñu nga sax nit ñi bu dem dugal la ci maanaam képp koo xam ne xaasixil isaa wax xam da ngay gasum pax di ca def rek mm-hmm. baa ngay sëf mm-hmm. suñ borom nee na boo bëggee mucc ci moom waaye waaye bu ñu wut leneen. Mhm. kaay jël falax ak naas. falax mhm. ak kan. Mhm. wa min sarri nafasaati fil uqad koo xam ne ñetti wëñam lay yor. rouge blanc ak noir. defe naa mooy wëñ gu xonq. ak gu ñuul ak wëñ gu weex. yenn saa yi mu def salaali muhammadam wala poqe yooyu wala poqe wala fàll yi wala xàncu guy mbaa gis mbaa dur yi moo xam lu mu a doon defar ko ba noppi bu nga nee nganam nganam ne ëf ne diw ba moom ñetti fas-fas mu lem ba mu kii mu dugal ci barab doog laa seet am ñoo xam ne juróom-ñaari façon lañ koy def am ñoo xam ne fukki façon benn nee nag comme ci mën a doon ci moom boo muy gee mucc min sar yi nafaasaati koo xam ne day jàng di ëf ci ay këmiñ di fas fil xoqat ci ay fas-fas mm-hmm. suñ borom nee na wax ak man moo gën a gaaw mm-hmm. boo bëggee mucc min sari xaasidin ponkal mm-hmm. ma entraîné ñu tuddee ay nervi agresseur délinquant scandalisme comme ci mën a doon ci ñoom ba ci oto yii nga xam dañ naa déparé barab sàngam jëm barab sàngam ni këpp ci yoon wi ñu tuddee accident moo xam nu mën a demee. Mm-hmm. ba ci dugg ci gaal yi dem ci géej gi. Mm-hmm. moo xam nu mën a deme mm-hmm. waxoon naa fi maanaam pikir bu rate képp ñàkk ñaan yàlla la. waaw. nga dem ci docteur bu ko man te bi ngay wax ak docteur bi waxoo yàlla ba noppi. xam nga docteur balaa bu war a pikir daa war ne bisimilah. waaw bisimilah. dog ko ca def yàlla jiitu ko ca. bu noppee mu ne alhamdulilah.